am na fukki fan yu nekk suñu kanam ci weeru aj borom bi subhanahu wa taala génnati boo ñëwee ci saaru fajr borom bi mu ngi wax baad audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahman arrahim walfajr wa layaalin ashr ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na borom bi de mu ngi jublu ci aaya yu ñu jàng léegi fukki fan yi nga xamee ni ñoo jiitu ci weeru aj te nag mooy dëppoo boo xam ne dëppoo na ci borom xam-xam ñu jiitu woon muy salafuna saalih ak ñu ñëw ci seen ginnaaw kon nag fukki fan yooyu mooy fukki fan yi nga xamee ni ñoo jiitu ci weeru ñu xam ne nag ay fan yu màggale mun nañ ne ñooy fan yi nga xame ni ñoo gën ci at bi comme ni ñu xame ni fukki fan yu mujj ci weeru koor yi ñoo gën ci guddi at bi kon fukki fan yi nga xame ni ñoo nekk ci weeru aj muy weeru zilxijja ñoo gën ci fanu at bi yëpp moo tax ñëw na ci xadis boo xamee mu ngi ci saxiix al nekk ci saxiix muslim saïd ibnu jubayr jëlee ko ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma ibnu abbas radiallahu taala anhuma ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa min ayamin العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الله أكبر kon niñ ko déggee Ibnu Abbas ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul ay fan yoo xam ne ñoo gën walla amul jaamu yàlla koo xam ne dina màgg ci fukki fan yi nga xamee ni ñooy fukki fan yi aj bi lépp loo xam ne nit ki def na ko ci ci ay jaamu yàlla na xam ne ay yool yu bari la màggaa yu yool yooyu de dina ëpp sax yoolu jihaad allahu akbar mu ne ko donte ni yoolu jihaad mu ne waaw waaw lu dul nag waajoo xam ne dafa génnoon di jihaad ci yoonu yàlla yóbbaale alalam ak doolem lépp mu baa di bàyyi ko ci yoonu yàlla maanaam liñ ci jublu ay yu màgg liggéey borom bi subhaan maanaam liggéey liggéeyal ci borom bi subhaanahu wa ci ay ngëneelam dina ëpp ngëneelu jihaad fi sabilillah te yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañ ne jihaad fi sabilillah ngëneel gi ci nekk ngëneel gu rëy na ba tey ñu ñëwaat ci ngëneelu fan yooyu Abu Awaana jëlee na nettali na ci xadis abi hurayrata radiallahu taala anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر يعني عشر الحج fukki fan yi nga xamee ni ñoo jiitu ci weeru aj ñoo gën ci at bi loolu nag daanaka ijmaa la boo xamee ni umma bi dëppoo na ci waaye du ñàkk laaj bu taxaw ne lan moo tax fan yooyu nekk ay fan yoo xamee ni ñu ngi ci yi ndax tontu ki dañ la naan pas-pas da cee nekk maanaam dañ ci dañ ci beesalaat pas-pas surtout ñi nga xamee ni yàlla baaxe na leen ñu taxaw di ak ci weer tamit li gën a tax fukki fan yooyu jaamu yàlla subhanahu wa taala tedd ci jullit yëpp dañ ciy dëppoo di màggal borom bi subhanahu wa taala di ko sàbbal tamit ñu bañ a fàtte ni fukki fan yooyu ginnaaw bañ ne ñi nga xamee ni dañuy ak dinañ ci màggal baatu tawhid di ci salaat seen ngëm yàlla ci tuub di delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala ñi nga xamee ni tamit yàlla def nañu mënuñu dem aj ñoom tamit ay ngëneel yu bari dinañ ko am ci fan yooyu bokk na ci ngëneel yooyu julli jullu tabaski bokk na ci ngeneel yooyu woor wo wooru bisu arafa ci ñi nga xamee ni yàlla def na ni bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy ak maanaam dañuy taxaw yi arafa naki noonu tamit bëri na luñ ci génnee ci ay sarax bëri na luñ ciy génnee ci ay dimbal yoo xam ne dañ koy jox way aajo yi tamit ñu bañ a fàtte ni bis boobu ci la nit ki maanaam ci fukki fan yooyu am na ci bisu tabaski bis bi nga xamee ni nit ki da ci rey xaram màggal borom bi subhanahu wa taala màggal bis bi màggal bisu tabaski ñu bañ faat tamit bis boobu maanaam muy bis bi nga xamee ni ci la ñu rey suñu tabaski muy bisu julli bis boobu mooy bisu aj bu jongay bi muy ay xajjul akbar kon yin fi tudd yëpp maanaam kon ñu xam ne jaamu yàlla yi nekk ci ponki islaam yépp bu ñu neexee ñu ne dañuy dajaloo ci fukki fan yi nga xamee ni ñooy jiitu ñooy mooy fukki fan yi nga xamee ni ñoo nekk ci fukki ci kon ñu xam doomu ndey jaamu yàlla yi nag bëri na ci fukk fan yooyu waaye jaamu yàlla gi ci gën a rëy mooy jaamu mooy mooy aj ndax ñëw na ci saxiixayn ci xadis abi hurayrata radiallahu taala anhu moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne alxajju almabruur laysa lahu aljazaau illa aljanna allahu akbar kon nit ki nag su ko yàlla mayee kattan xéewale ko nga bokk ci ñi nga xamee dañuy aj ak bu ko yàlla may nangulee aj boobu daanaka yoolam bi nga xamee ni moom lay payooram bi nga xamee ni moom lay xaar mooy dugg aljanna yàlla nañ ko yàlla may ni tamit sama doomu tey yàlla def na ni bokkoo ci ñi nga xamee ni dañuy ak yàlla jagleen lañu ñun ñi nga xamee ni yàlla def na ni mënuñu fekkee ak ñu woor bis bi nga xamee ni mooy bisu Arafa ndax ñëw na tamit ci xadiis abi qatada moom an abi qataadata radiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal siyaamu yawmi arafa inni ahtasibu ala allah an yukaffira alsana allati qablahu wassana allati ba'dahu kon li nga xamee ni tamit yàlla def na ni fekkeewul wala demul pour aji na xam ne ni bu wooree bisu arafa bi nga xamee ne ñuy aji fa la ñuy tax ñi nga xam ne dañuy aj bis boobu dañuy taxaw ci arafa moom mi nga xamee ni yeggu fa bu toogee ci këram fu mu mënta nekk ci kaw suuf woor bis boobu ñaata bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi am jot wala maa ngi mbébét ci borom bi subhanahu wa taala mu doon maanaam weer woor bis boobu yoolam doon jéggalu bàkkaar bi nga xam bàkkaaru bi jiitu ak bàkkaar at bi nga day ñëw kon yàlla nañu yàlla may ñu fekkee bisu arafa yàlla may ñu ñu woor ci arafa kon doomu ndey lii yenn la ci ay jaamu yàlla yoo xamee ni yu mënul ñàkk la ci bis yi nga xamee ni mooy bisu fan yu njëkk yi nga xamee ni ñooy am muy ay ashurul awal ci weeru zilhijja ci weeru zilhijja doomu ndey ji lii lenn la ci ay ngëneel wala lenn la ci pàcc boo xamee ni mënul ñàkk ma ci fàttali sama bopp te ci fàttali doomu ndey yi nga xamee ni ñu ngi ñuy déglu lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu jub ci borom bi subhanahu wa taala la lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëng wala mu sooxee ci kiy wax la ndax doomu aadama dafa motul kon nag seen doomu ndey al oustaz Mouhamed Sène fële ci Riyad ànd ak mbokk mi nga xamee ne ñoo nekk ci site internet yi nga xamee ni ñëpp xam nañ ko muy Islam House ñoo doon jàppalante ak yéen ci émission bi muy fadlul ashar zul hijja wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad